jere ngeen jëf mbokk internet seen Vox Plus bu ñu ngi leen di jaajëfal bu baaxa baaxa baax top baax topp gi nga ñuy kii di Abdou Aziz Ba ñu gën ko xam ci Aziz Dabala sa su ne ñu ngi top ay mbiram waye dafay melni ni dafay am sa su ne ay surprise ci biir jëm ji di Aziz Dabala sa su ne nga dégg nag ay révélation yoo xamantani ku nekk sax dafay dem ba daal di lënt sa waye nak sa su ne ñëpp di dégg ci nak ay bir xamanteni sax ku ko dégg nara dar ci gemmiñ jëmm ji aji dabla ñu ko fat ki rek fofé ci pikine anam mu ñaaw waye bol ko fatam kooke nga xamanteni ni lañuy wax ni jërbatam la di walé ka nga xamanteni mom moko fat bañu ko jappé lamu wax moy dama ko doon ñaan pass mu bañ mu xop ko bo far xeex am ma dal koy jam mu dee ñu bari ni Sénégal ñu nanguwuñu loolu waaye tamit xel nanguwul lolu ndax kat li tax xel mënu nangu lolu nan la mëna Aziz dabla mëna a dëkk ak ki nga xamanteni mom moy jabatam bobé di waali nit di xex ak mom te gennul atté wala bok addu ci sax ba nit ñi xamni fi fii am na ci waye leneen la ci tas keneen gën daal di wax que ni ki di Aziz dabla ña ngi ko rey loolee nga xamante mom moy boru 16h waye waaye bat ba ña rey ci boru 20 h Senegal nak lit na lolou ndax ku nek ma ngay melni moy jisu bopam ndax ku nek ma ngay wax version ba ka wex ñu bari nak di topp ak kalen saf di ngeena a deglu lolé nga xamante mom moy mbirum Abdou Aziz Ba ñu gën ko xam ci Aziz Dabla doonoon ab fecckat dëkk ca Pikine ñu ràññee ko loolu ci kili bi bëree bari waaye nag léeg-léegi nag ñu am surprise ci loo xamante ne ñu bari joxoon nañu tuuma ki nga xamante ni moom mooy ku jigéen ko kay nga xamante ni moom moo nekkoon ci série en ñu gën ko xam ci nabu lay moom nag ñu ngi ko mettre garde à ndax lan peut-être dañu amagul lu wóor wala lu leex ci suñu nopp ba tax na police téye ko. waaye boobee ca màggal Tuubaa am na keneen ku ñu jàpp koo xamante ne muy wuyoo ci turub Mor Lo nag bi ñu ko jàppee wax na ci ñeneen tudd turi ñeneen ba ñooñu tamit dafa mel ni kookee nga xamante ne moom mooy suñu police wala suñu gendarme yu xare yi daa tañ leen di woo mbirum Aziz Dabala bii yéem nañu fa yéem yam ndax ku nekk ci senegal mu ngay génnee version waaye jàpp naa ne ak suñu police gu xarañ gi ak suñu gendarme gu xarañ gi jàpp naa ni incha allah rabbi ki koy def def ci ñaaw ji dina feeñ léegi incha allah nit nag bu génnee àdduna ak lu mu mënta def ak lu mu mënta mel doo def lu ñaan ko yàlla suñu borom xaree ko àjjana firdawsi di wax ko ki nga xamante ne moom mooy Aziz Dabala ak Waale yàlla na suñu borom xare àjjana firdawsi waaye way leen di topp bi nga xamante moom mooy vox Plus lépp lu ci leer ci ak lépp loo xamante ni lu ci leer ci xibaar la dinañ leen ko taataagal ndax nag duñu seen boo xamante ni dañuy tëb di wax wala di forte wax ñu ngi leen di jaajëfal benn yoon incha allah jërë ngeen